ñu leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen abonné chaîne bii di xalaat ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dalal ci seen nouvelle vidéo tey ñuy waxtaanee li nga xamante ni mooy bouillon yi maanaam produit yi nit ñi di utiliser rawatina ñi di jigéen ñi maanaam ci seen i togg dañu gis ni fi ci Sénégal de plus en plus li nga xamante ni mooy ay bouillon comme ay jumbo ay magie ay aca jonge bëri na bëri na ay produits yoo xamante ni nii c'est des bouillons ay entreprise di ko defar di ko jaay ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi ñu gis ne tamit entreprise yooyu dañuy profiter ci li nga xamante ni nii mooy yenn événement yi wala ci yenn fête yi comme weeru koor wala korité tabaski wala yeneen événement pour promouvoir gën a jaay li nga xamante ni mooy produit yooyu

muy jox explication ci li nga xamanteni ni bouillon yoyu nonu ma leen cité léegi nay moy jumbo ay magie ay adja ak yeneen i produits yi nit ñi di utiliser lan lañ ko defaree ak yan danger le mëna am ci li nga xamanteni ni ñi koy utiliser ñu déglu xalaatu ki nga xamanteni ni expert bobu di Pathé mbay bouillon man sama spécialité. d'ailleurs ci la bind sax. ci laa def mémoire. bouillon bouillon yi ak saf-safal yi. ak ak ndox mi. Hmm. ndox mi maanaam mooy. arom arom ndox bi laay wax. maanaam li ñuy saf li ñuy wis daal ci ci ci ceeb bi. waaw waaw waaw uh-huh. amul bu ci baax. Uh-huh. dafa am posen uh-huh. posen bu naan glutamate de sodium moom lañ moom lañ ko simé ñu bari nag dañoo yaakaar ne bouillon yi dañ dafa am xorom mais amul xorom benn pepp xorom amu ci maanaam li muy saf na yëpp du xorom du xorom de loolu mooy posen bi posen bee saf xorom posen bi hmm. mooy moom la ñuy wax sel chimique sel chimique te bouillon dafa am fu mu jógee ñun Sénégal moomuñu ko dafa am benn juif bu naan Ehud Koni c'est un israélien ku am xam-xam ci chimie appliquée moo ko inventé woon 1951 ci ci guerre froide bi guerre froide mooy bu nu xeexee ba wér ngànnaay mm-hmm. ku ne day faagaagal sa morom te du ko xam léegi Ehud Koni nag lëkkaloog américain yi mm-hmm. créé bouillon yi di ko jaay arab yi wër Israël pour ñu dëkk hôpital di feebar di dëkk hôpital ndax bañ a xeex Israël ndax ku amul wér-gu-yaram moom doo tala xeex waaw ku amul wér-gu-yaram doo tala xeex muy juróomi réew yi wër Israël. Mhm. Égypte Jordanie Syrie Liban ak Palestine. gis nga jamono yooyu feebar yi sénégalais am di ko faj ci hôpitaux yi Moyen-Orient moom la ñu amoon di ko faj. ah léegi nag euh, yan yan feebar lay joxe. moom glutamate de sodium poison boobu bon avant avant may. may dugg ci loolu dama bëgg a démontrer nan la glutamate de sodium di nan la nekk posen bismillah waaw ndax xam nga ñetti produit moo am ñetti produit chimique moo am ci ci moo am. produit bi nga xam si acide la. ak produit yi nga xam si base la. ak produit yi nga xam si toxique la. yooyu am mais nag ñu ngi koy seete ci ci pH bi di naan potentiel d'hydrogène. waaw foofu lañ koy natte. bon nee nañ un produit est acide s'il est inférieur à cinq. tout produit bu nga xam si te am na pH am inférieur à cinq rek acide la. léegi ñu ni un produit est basique s'il est supérieur ou égal à cinq. produit bu nga xam ne si na 5 wala mu toll 5 rek basique la léegi mu des benn ñu un produit est toxique si le supérieur ou égal à 7 glutamate de sodium bii nag son pH est égal à 7 donc ci toxique la bokk. bon maintenant feebar yi muy joxe xam nga ban feebar la njëkk a jox. tànk yu miti tànk yu miti la la njëkk a jox bu la joxee tànk miti ba pare daf lay jox maladie bu naan aspartame parce que glutamate de sodium mook drogue benn lañ propriété yi drogue am moom la glutamate de sodium am la seule différence drogue daf lay doflo mhm. mais glutamate de sodium daf lay naglo da ngay mhm. en chimie. Donc ngay gawa faté est bouillon. da ngay gawa faté mhm. te bu la joxul bu la joxul aspartame. li tension des yeux. parce que.

Sénégal xorom sépp dañ ko yoode waaw dañ ko yoode mhm. pour mu bañ a joxee eh, kii goiat ah mhm. mais glutamate amul amul yood moo tax mu joxe goiat beneen maladie bi ci des mhm. mu insuffisance rénale insuffisance rénale moo gën a sonal tey doomu aadama yi te kenn mënu koo faj kenn mënu koo faj fu mu la dalee xamal ne genn wàll nit nga bon insuffisance rénale mooy lan mooy am na ñaari rein ci ci ci ginnaaw nii faut mooy fóot deret ji rôle mhm. chaque jour nous fóotal 200 litres de sang de duñ ko jour. chaque jour 200 200 litres de sang rein yi dina ko fóotal ci biir organisme te duñ ko yëg ko defee da ngay safa saw rek bu ko ba protéine daf koy ci vessie bi mu gonfle nga safa saw nga dem parce que tur ndox ci mañ ñi rek la nga ko xamee woon maanaam feebar boobu léegi ndaw ñi di ko am est kon bouillon yooyu moo. waaw moom laa la wax kii bouillon yi boo ko dee lekk au fur et à mesure. Hmm. Euh, parce que ki euh, biir euh, kii bi. roño yi li naan ñebbe fii. ñebbe rein yi. ci biir dafa am ay nefron

Hmm. wala xar mu alde jëlal ñaari bouillon n'importe lequel nag jël ñaari bouillon nga def ko ci rebaas jox ko ko mais nag bu ëppee bu ëppee ñaar day dee de hmm. bu ëppee ñaar hmm. day dee de posen bu foor la laa la wax xam nga lu war a gaafal uh-huh. mooy bouillon bi saf-safal yi ñuy togg boobu mooy indi musiba ma bagumba li tax kenn interdire ko glutamate de sodium bi industriel yi dañoo nax gouvernement bi bu ñëwee glutamate de sodium dañ koy nëbb parce amul ex ici au Sénégal bu ne ci gouvernement bi di liggéey ci gouvernement bi chimie appliquée au Sénégal je je déplore cela au Sénégal Fi génie génie alimentaire moo fi am ak génie chimie mais chimie appliquée amu fi c'est malheureux nak parce que ñom amuñu ci ay expert normalement délégation bu jógee assemblée nationale lu toll assemblée nationale nga am ci dañuy contrôler gouvernement bu ndé dem di bu ndé dem ci usine sur le terrain di xol, war na am ben expert bu and ak ñom bu paré rapport kon mbokk yi yéen a ko gisandoo xam ngeen ni bouillon yooyu noonu nga xam ni bokk na ci produit yi ñi gën jaay fii ci Sénégal dafa am ay contenant yu ci nekk am ay éléments yu ci nekk yoo xamante ni baaxul ci ñi koy jëfandikoo kon dañ ciy profiter pour sensibiliser ñi nga xam ne ñooy population bi maanaam sénégalais yi ñu moytu produit yooyu bàyyi di ko utiliser waxuñu leen ñu wàññi ko mais nañ ko bàyyi une bonne fois parce que produit la yoo xamante ni gis ngeen ko yéen a ko dégloondoo yéen ñëpp moo favoriser li nga xamante ni mooy yenn maladies yi gis fii ci Sénégal kenn wératul muy mag ñi muy ndaw ñi kenn wératul te dara waralu ko lu yooyu nga xam ne sénégalais ñu ngi koy jël di ko consommer du jour au lendemain suba ak ngoon guddi ak bëccëg. yooyu la ñu gis ñu koy promouvoir ci télévision yi chaque jour di ko jaarale ci ay théâtre des séries télévisées ay feuilletons di ko promouvoir di inciter ñi nga xam ne ñooy sénégalais ñu koy jënd alors am na leneen lu ne ci xamante nii baaxul ci seen wér-gu-yaram dañuy ñaax ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi rawatina jigéen ñi nga xam ne la plupart fii ci Sénégal ñooy dugg waañ di togg. pour xam ni produit yooyu noonu bouillon yooyu noonu ñuy wax baaxul ci santé ñi nga xamante ni ñoo koy jëfandikoo wér-gu-yaram moo ëpp doole lépp balaa nga ko xam nga toll ci tawat war faju yàlla bu mu tombee que ni nii yoroo moyen yi nga xamante ni moom ngay fajo parce que Sénégal toll na foo xamante nii léegi ku fi feebar te amoo xaalis maara détaali ñaanuñu ko yàlla sa bakkan amaana di nga ko ñàkk donc nañu bàyyi produit yooyu wut yeneen substance yoo xamante ni substance yu sel ñu utiliser ko pour li nga xamanteni moy togg bi boo jëlee exemple laurier du sel iodé baa ngi fii am ay yeneen produit yu ci bari yo xamanteni mën nga ko assimiler ak ay yeneen aliment yo xamanteni di nga togg togg bu jaar yoon mais aussi du la amal benn ngaañ du la amal benn danger ci li nga xamanteni moy sa wér gi yaram dañuy ñaax aussi ñi nga xamanteni ñoy autorité yi autorité étatique yi ñu jël seen responsabilité parce que ñoom ñoo yor doole aar ñi nga xamanteni ñoy ñooy consommateurs yi ñoom ñoo am moyen yi nga xamanteni conserver li nga xamanteni moy santé wu population formation bi ñoom tey ñooy attribuer li nga xamanteni moy licence ñi nga xamanteni ñoy entreprise yi may leen ñu exercer sen activité fi nga xamni moy Sénégal donc ñom ñoo wara veiller ci contrôle bi di vérifier produit yi nga xamanteni entreprise yi ñu koy utiliser ñu ko jox Sénégalais ñu koy jëfandikoo du am ay problème wër gu yaram war nañu recruter ay experts yo xamanteni dinañ def vers ces entreprises là di xool processus de production bi ñi def ci produit yooyu laataa ñu koy jël diko fournir ñi nga xamni ñoy les Sénégalais les consommateurs donc encore une fois autorité

donc vidéo bi tey loolu la comme ni ma len ko don waxi à chaque fois Xalaat TV dañuy intervenir ci domaine yëpp lu ñu intéressé rek moy sénégalais yow comprendre li nga xamanteni ni mi ngi am ci sen réew té amuñu média amuñu benn support bo xamanteni ñu mën di renseigner wu am ay jangatu yu leer nañi donc vidéo bi tay won bu len faté tamit abonné wu partager aussi vidéo bi bu la vidéo bu ngeen war a partager partager ni partager la képp ku la vidéo bi ni nga doomu nga sa ci nga ni maladie wala li nga xamné ni sax moy ñak bakanam manam jaamu yalla la partager vidéo bi donc dañuy ñaax ñëpp ñu partager vidéo bi seen xarit jot ko seen famille jot ko entourage ñëpp ñu jot ko ngir ñu sauver ay conserver li santé sénégalais yi donc tey vidéo bi loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon